pundal maa ngi leen di nuyu ci nuyu bi gën a sell dañu fi daje ngir def déclaration bo xamante ni dafa jëm ci élection yi ñu dëgg kuma ku ma xam xamee ma APR kuma ma xam xamee ma président de la république Macky Sall muy sama mentor di sama kilifa ci politique ñu ànd 2008 ba tey donc dafay nekk mine de rien seize ans yoo xam ne maa ngi ànd ak moom ma taxawu ko fu ne muy Dakar Madiaw wax na ko sànq ñu tàmbalee ci mouvement am Wade ànd ak Macky ngir dooleel Wade man maa nekkoon secteur général chargé de l'organisation de ce mouvement loolu 2008 la Thérèse Faye ñun ñoo ko jëli ji indi ko boole ko ci mouvement boobu noonu ñu ngi doon defee suñuy réunion bureau directeur de cabinet bu Abdourahim Agne tuddoon Amadou Yoro Ndiaye mu nekkoon building à l'époque foofu la ñu tàmbalee ak Macky Sall ñu jox ko suñu bopp bàyyee ko suñu bopp moo waral 2008 ba 2021 du benn ndombo tànk buñ jox Aline Badara waaye taxul Aline Badara dellu ginnaaw ci combat loolu nag gore la parce que defe naa ne booy ànd ak nit ci politique bu mënee daf la war a defal ànd naag moom 2008 ba 2021. la may doog a jox nomination deux ba deux mille vingt et un bëri na élection yu fi jaar lépp lu ñëw lu ne rek taxaw nañ ci ak suñu doole taxaw nañ ci ak suñu ngor taxaw nañ ci suñu wetu askan pour ñu jàppale fu ñu ko jàppalee yàlla may ko ci ndam jamono di dox ba ñu indi coowu ñetteelu mandat ci réew bi ñetteelu mandat coow bi taxawee muy góor bu set mais Sénégal la ko gënal lu munta am mu taxaw ne moom nekkul candidat tànn nag nit jiital ko ne yéen waa APR romb na APR mais yéen waa Bennoo Bokk Yaakaar topp leen Amadou Ba mooy sama candidat lu tax ma tànn ko tànn ma ko parce que moo neex Lors moi du choix même mu ko waxee ci tubaab daf ne c'est pas un choix du cœur mais un seul choix de la raison loolu mooy tànnuma ko parce que sama xol moom la fêter, mais dama ko tànn parce que sama xel moom la nangu ne moo attan li nga xam ne moom la ñu dëgg ma may koo xam dama am lu ñuy wax discipline de parti ma dem top ndigal top Amadou Ba bu fekk tamit ne sama xel man nangul won kudul Amadou ci ñi taxawon ne dañu bëgg kon muy choix bo xamne dafa mengo man sama ciakute ma and ci déparé Dakar ñew ci samay mbokk ne len Amadou lañuy ñuy campagnal ñu and ak man ci biir département ma nek le plénipotentiaire départemental taxaw ci biir piloté élection yi ba mu jeex ñu gagné département de Koungheul ñàkk commune de Koungheul mais gagné nañ département de Koungheul loolu boo gisee may def précision boobu dafa am solo parce que dañu dégg tout le temps gars yi di dugal vidéo bu Aline Badara ne je vais anéantir le Pastef dans le département de Koungheul ñu koy dugal nit ñi di ci commentaire damay wax ne loolu seen gàcce la ñoom parce que vidéo boobu li ma waxoon def naa ko. PASTEF gagnewul département bu Kougal ah, donc le pasteur a perdu le département de Koungheul kon li ma waxoon ci vidéo bi respecté naa loolu réponse la bu ma leen bëggoon jox rek muy parenthèse bu ndaw ci wàllu woowu di wax ne ñu ñëw 2024 ñu dissoudre assemblée nationale ñu war a jëm ci ay élection APR bi ma àndaloon ñëpp xamee bis mi ki tey dakkal naa sama bépp yëngu ci biir APR fas yéene jokk li nga xam ne mooy kóllëre topp li nga xam ne tey mooy gor mooy ngore mooy gore parce que ma fàttali ne 2008 bi may topp Macky Sall Ablaye Wade moo ma ko joxoñoon ne ma topp ko ma topp ko diir 2007 2008 mu taxaw ne kii bokatul mo gëna bon mo yees bu ko kenn top ma dem top ko parce que nak non lay doxé ben cadeau la am suma ko joxé nit duma ci wacc sama cadeau bima togué ak Amadou jox ko ko rus tay wacc wàcc ci kàddu boobu APR wonen ma wax nen ba tay ci suba gi lu fukki appel wonen mako ko pour dem lo ma ci ndaje mais nee len takal na bepp yëngu ci dafa simple trahiruma waruma kenn laa toppoon mooy Macky Sall nekku fi APR tey Abdou Mbow la Thérèse fay la Ablaye Sow la Farba ñooñu topp ma leen ëpp ñu ma base ëpp ñu ma dignité ëpp ñu ma personnalité gënuñ ma bokk ci réew mi donc topp ma leen moo tax ma dakkal sama yëngu APR fas yéene bis mi ki tey dem ci niko Madiaw di nouvelle responsabilité nouvelle responsabilité ci tour bi rek limu dafa parce que rew mi tay dafa il faut ñu sauver ko dañu ne nañ leen jox am xam-xam ñom ñoo mën bañ ko gis nañ fi ñu mi Sénégal tay dafa dara kenn ba ci bailleur de fonds yi nga xamné ne ñoo ñuy jàppale institution financière yu melni FMI dañu jaxlé parce que réew mi ñi ko amuñu vision bu claire buñ mëna tek ci kanamu sénégalais yi ne leen fii leen bëgg a yóbbu réew te defe naa nag réew gouverner c'est prévoir gouverner c'est planifier mënoné da ngay jité réew té tegaloo nit ñi vision bu claire buy wone né yow fi nga jëme réew kon y a danger dans ce pays il faut que kep kuy doomu senegal nak nga djok wolof mu ne xoddeeku bala nga lakkale dafa am solo nañu djok li wessu yaakaar mo taxone nit ñi daw top Pastef parce que dañu gëmloo won nit ñi ne bu ñu jëlee réew mi 2024 ñu soppi réew mi Ousmane Sonko mo taxaw wax ko du sama wax bu ngeen démé ci YouTube wala vidéo yi di ngeen ko gis légui légui 2024 mu ngi jeex waxaguñ fi lu nit ñi xam tey la mbëkk mi gën a yokk tey la dund bi gën a cher kenn du ma ko wéeti bërki dem boo njaay leen fi génn ne wàññi neen ceeb bi wàññi neen nangam ñépp gis nañ ne loolu dara amu ci saako ceeb vingt mille francs lay jar tey dama ne li ñuy wax duñu sos dañuy wax rek li am ñu may corriger ci ginnaaw ne vingt et un kon loolu dafa leer bidon diwlin fi mu nekkoon la nekk yokku na kon dama ne ani li ñu digoon sénégalais yi ne loolu lañ leen di defal kon man dama bëgg sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa am muy département wu Koungheul ñu yeewu ci loolu bërki démb dégg ngeen le ministre de l'assainissement et de l'eau li mu wax dem Touba mbënd mi am mu ne nawet bi du suñu nawet nawet bi du suñu nawet defe naa ne loolu gàcce la nit mënuñ la jiital yaakaar la ndaw ñi ko boteel yaakaar ko daw taxaw jàppale ko mu jaral lan ñu dee ci àll bi ñu jox ko réew bi mu xëy taxaw di taxaw taxawaay boo xam ne jàpp na ne pour nelawal nit ñi ay xoqatal nit ñi moo moo fi war a nekk mooy dinaa tëj ñi parce que nag discours bi mu am tey comme échoué na lenn rek la mën a wax dinaa jàpp waa APR ñoo sàcc xaalis bi may indi ko pour ñu financer réew mi ay waxu caaxaan defe naa ne réew kenn du ko yoor ci ay naxaate kenn du ko yor it ci ay wax yoo xamante ni safaan la kon ma bëgg département Koungheul nit ñi nañu yeewu ci loolu nga xam ne moo xew ñu xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko waxal seen bopp te muy dëgg état ñetti pouvoir la pouvoir judiciaire exécutif ak législatif pouvoir exécutif jox na leen ko ñoom ñoo ko yore mooy nguur gi ñu ne beneen pouvoir bi nga xam ne tey mooy contre carré un peu abus yi nga xamante ni état da koy def mooy pouvoir législatif muy assemblée nationale Ousmane Sonko comme Diomaye toog nañ ne réew boo buggee mu dox doo jël assemblée nationale jox ko pouvoir ñoom ñoo ko waxal seen bopp

muy président amaru Ba defe naa ne président Amadou Ba du koo xam ne tey nit ñi dina naatable ci xam-xamam du koo xam ne nit dina naatable ci yaram du kenn koo xam ne di nga naatable aussi ci jokkoom ak fonk bi mu fonk këru diine yi nekk ci réew Sénégal dañu xam tarixa ñun loolu la ñu xam ba ci maam El Hadj Malick jaar ci Cheikh al Islam Baye Niass ci maam Kumba naka borom Touba bu bu Jaasaan maam borom Touba ñun ñooñu ñooñuy suñuy wasila ñoom la ñu xam kon defe naa ne suñu demee ba cër bi ñooñu amoon ci réew mi ay nit taxaw di leen song di wax ci ñoom te dànkaafuñ ci waxuñu ci mooy ànd nañ ci loolu kon ñun nak li ñu gëm moy nañu délo buum ci boy boy moy ki nga xam tay japp nañ ne jox na cër këru diiné yi respecté sénégal te am xam-xam nañ ko jox assemblée nationale ngir mu mëna contrecarrer cette dictature rampante kàddu googu la né won tay dina ko wax fi ci département wu kungal mënon na ko waxé dakar mënoon naa woote point de presse Dakar def ko fa mais dama ne damay ñëw ba fii ci Koungheul jàkkaarloog samay mbokk wax leen ko ñu xam ne seen doom seen rakk seen jëkkër seen mag seen nijaay moo ñëw tey ci ay ñoñam fas yéene leen jox boppam dénk leen boppam sàkku ci yéen gunge ngeen jàppale ko ngir mu mun a dem assemblée nationale continuer wéyal xeex Koungheul kon loolu laa ne woon tey dinañ ko wax fii yeggee leen ko dénk leen suñu bopp féddali sama yaakaar ci yéen gën leen dénk sama bopp rawatina waa Koungheul département wu Koungheul ngeen xam ne Alioune Badara doomu département bi la te tey sama gis-gis bu gën a kowee mooy département Koungheul bokk ci gox yi ñu gën a ràññee ci senegal loolu mooy suñu combat bu ñu yàlla jàppalee incha allah dinañ yóbbu Koungheul fu kowe kowe yóbbu bi nag dafay tàmbali ci assamble nationale bii ñu dëgmal di wax ne bu ngeen ñu jàppalee ñu dem ci dégg naa li ñu fi wax yëpp man nangu ko parce que nag ku àndul ak ay nit doo leen tooñ yàlla ci boppam moom moo bind tooñ bu ko neexoon tey kenn du tooñ surtout moom ci boppam kenn du ko tooñ mais soo gisee mu bind ko. def ci wet gi ne buñ bindee bu ma la tooñee tey yàlla ci boppam bu ma ko tooñee day bind mais du ko bindal dig dañ ne crayon la koy bindee bu ma taxawee tuub ko mu effacé ko kon yéen waa Koungheul rawatina samay militants yi nga xam ne cof naa leen te tayuma ko parce que duma du ma cof kenn teg ci kaw tay mënul nekk képp koo xam ne gis nga ne Alioune Badara cof na ma maa ngi lay jéggalu di sàkku ci yow nga baal ma ñëw ànd ak man gunge ma ñu jàppalante yóbbu suñu departement ci kaw a kaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant di gërëm sama yaay bu baax a baax.